ça va yaa ngi ci jàmm. waaw damaa bëggoon nga jàppale ma. man kay daw ma fi sori. mooy damaa bëggoon nga jàpp parce que ah dafa benn waay bu may topp suba ba léegi man de bu may topp xaw grand boobu gis musuma kaa gis ki xaw ma naa dafa dof mu ma naan ay yow looy def fii ak loolu te kooku xaw ma ko musuma koo gis mu may topp moo nekk na taxaw. mi Mau nekk nii di ñëw xaw ma mu ngi may topp nag soo ba léegi xaw ma nag kan la ya, man man damaa bëgg a ñibbi mënu mënu ma fexe ba génn ci université bi mi ngi nii di ñëw yow looy taxaw fii li la waxoon yow looy taxaw man da ko xam wuyu ma eh waa ah, grand grand eh grand eh grand <laughs> ça va. yaa ngi si jàmm. man dafa am benn grand bu may topp soo ba léegi damaa bëggoon na nga jàmm parce que kooku xaw ma ko xamaane wu ma ko maa ngi ni bëgg naa génn ba léegi moom mu koj affaire bi damaa bëgg nga gunge ma dama dama war a ñëw ma ko awee parce que ma man xaw ma ko dafa may topp nii man wóoru xam nga. mu ma naan ay looy def yow lu nekk mel ni ku ma xam te Ma bëgg a ñibbi kay. man kay boo boo ma boo ma jàppale ma génn rek baax na. déedéet gaa bu awee noonu wóorul kii nii wérul. léegi yow boo ko jaaree woon bay génn boo jaaree. damay génn. sama ndey. grand mi ngi nii mi ngi nii. yow ma lay seet tey ci suba ba tey lan la lan la. loo seet ko grand xaw ma ko jàpp si yow tamit la lu xew lu xew kii xamuma ko de. gannaaw la xaw gannaaw. xamoo ko. lu tax ngeen ànd yéen ñaar da ngeen xam da ngeen kii ba ngeen ànd ak moom. gannaaw la moo xaw. ah gannaaw taxawal taxawal gannaaw taxawal non non gannaaw da ngay taxaw. non non la moo xaw mais dañuy dégg la moo xew. dina ma wax lan lan lay ànd ak moo xew gannaaw kii sa gel la. dina ma wax lan lay ànd ak sama copine. non yow man kenn daf maa yëg nga may du sa gel. waaw wéy léegi taxawal gannaaw bul poñe nag. non non bàyyi ko bul poñe waay saa waay waay yow eh saa waay eh, saa waay man mënuñu ànd gannaaw yow taxawal taxawal ñun duñu àtte de Chạy lên, chạy, chạy, chạy nạc chạy, bụi chạy, bụi kia đây bụi nạc chạy. Yo, yo, lo se lo lo lo se kang, lo se la la la lo se kang. Deglu ma, kau mau nanya, lo lo lo lo cuma pala. Eh, eh, lah cuma. Kau pun jalan, kau pun jalan, kau pun. Eh, kai bi. Eh, eh. Yo, yo, baik baik kiwa karena gerah baik. Lah, lo lo lo lo se kang mau bagan. Gerah yang ni untuk dole, baik. yaa ngi néew kii doole gën a bàyyi ko waaye. kii lan la am lu muy expliqué. gannaaw yow dina yow gannaaw yow kii jabaram la yaa ngi naan kii jabaram la. bu ñu eh. saa ya, eh. gannaaw caméra cadre la wala caméra cadre la wala caméra cadre la. grand ça va. ça va bien. dama bëggoon nga jàppale moom. dafa am benn grand bu soo ba léegi mu ngi may kaw. mi ngi nii taxaw. mi ngi nii moo sol yére bu noir bii nii. waaw bu may topp soo ba léegi xaw ma ko sax. teeku ñu man maa ngi koy door a gis tey suba laa koy door a gis. man maa ngi koy soog a gis doo bàyyi fen. kii ngay taxawal kan kii kan la kii kan la kii ngay taxawal. kii xaw ma ko. ah. mu naan maa ngi soog a wàcc yéen dara kii xaw ma ko. dama ñëw mu ni ma waaw xam nga bu boy la kii xaw ma ko léegi bàyyi ma léegi bu tax ngay nga taxaw ak moom ni ma ni moom dara génn man wàcc ma am benn kii bu woon benn suto naa man xaw sama waa ji yow doo doo doo doo ci génnee noonu kii li ma def yëpp sama waa ji yow ñu dem foog ñu eh ko la waaw saa moom maa ngi yow da ngay jéem a am fit. non xam nga dama dama wàcc sonn quoi. saa daa sonn kay. waaw sonn quoi. yow la dooroon nag su ma dooroon nag. yow nga xamante affaire yooyu la. dégg nga waa lii moom. waaw saa yoo xam ne waayoon. dama ne la dama. waaw kii kay dama dama commencé dépassé quoi. saa yoo saa yoo saa yoo sori man sori ma moo mer sori ma waayoon.